du coup du coup ko métti lan hein, parce que je pense que comme ni ngeen ko gisee défaite bu amère la ah défaite boo xam ni euh, euh, peut-être fu ñu koy foogul woon entame bi tane na malgré desoon na tuuti impair mais ñu ñëw am benn bii bu ñu ci ay fait de jeu ay erreur défensive bon dafa bokk ci football mais ñu consommé ko mais malheureusement le temps que bi réagir ci lañ jëlaat encore un deuxième l'adversaire poussé ñu pour pour def loolu donc ci loolu lañ nekkoon jël ko nak mu métti ñu lool ah, parce que soo xoolee si tableau bi ñun bi mooy suñu ñetteelu génn suñu ñetteelu défaite aussi donc je pense que calendrier bi moo ñu xawoon na je ne dis pas pénaliser, mais peut-être déplacement yi amaguñ ci ay repères donc euh, semaine bi nag comme ni ngeen ko waxee on va se rattraper parce que y a deux matchs en semaine on va essayer de travailler dinañ ko essayer liggéeyaat pour essayer génne équipe bi ci fi mu nekk nii incha allah. benn am na si mooy soo liiree keroog.

pour mën a taxawal équipe bi taxawal ko quoi parce que jot na parce équipe bu mag la di dëkk bu mag mais cette année pour trois ans yi dañ ni transition lañ bëgg a def pour essayer au moins nekk si cap bi te am naa yaakaar loolu donc moi tax am nañ ci yaakaar te dinañ ci liggéey pour taxawalatal équipe Ndiambour mu équipe bu baax maximum hein, parce que comme que dañu génn ñàkk suñ ñëwee suñ dëkk daal li ñu war a mën a def rek mobiliser wu parce que il faut une forte mobilisation quand même parce que loolu de ci bokk dafa bokk ci ci ci liy suuxal équipe donc nous nous lançons un appel pour que nit ñi ñëw parce que ñoom ñoo ko moom bu Louga la tudd Ñambur la tudd donc suñ ko mobiliser am naa yaakaar ni mën nañu ko def pour redresser ou pour am ndam contre Guédiawaye incha mercredi. am nañu ñaari mi-temps yu ute et c'est pas du suñu bëgg-bëgg parce qu'en premier temps on a essayé def. Euh, intensité mettre du rythme dans le jeu mais à chaque fois dañuy voit que adversaire bi bu un rythme ou bu intensité bi jógee rek de casser le jeu bi ak ay joueurs de après ça c'est un argument et deuxième mi-temps bi lu joue joueurs vu que adversaire bi buggul rythme bi il faut que nous de notre côté essayions de garder le ballon terrain le plus longtemps possible et da fay passer par de la patience bu ñu yoré ballon bi ñu baña a trop trop dem ci kanam et surtout jël le temps garder le ballon euh, déplacer bloc adverse bi et aussi jël temps fixer leen pour déstabiliser leen ak yoyu ça c'est ay ay façon la yu bëri yo xamanteni euh, loolu ñu waron def essayer nañ ko def en deuxième mi-temps et surtout aussi am cette capacité euh, attaquer profondeur bi loolu mo favoriser dougou Ousseynou Boy parce que xam nañ ni joueur la bo xamanteni euh, espace bu amé ci kanam mom daf koy jël et surtout face à une défense boo xamante à amuñu vitesse boobu euh, loolu la ñu exploité maintenant waxoon joueur que dès que ñu am opportunité attaquer espace bi avec le ballon ou sans le ballon ñu def ko mom ñëw na def na premier but bi jaar ci loolu après le reste c'était beaucoup plus facile parce que match yi tant que da fay da fay compliqué quoi. muy deuxième match à domicile aussi muy euh, première victoire première victoire première victoire à domicile début saison là début saison là et fu mu toll équipe yi dañuy euh, dañuy jegeyante fu mu toll nii amagul kenn koo xamante ni na distance euh, parce que début saison il euh, y a plus de concentration mais ce match yi di enchaîner ñu dem ba si kanam si peut-être si la ñuy commencer di détacher wu ngay gis yenn écart yi mais là bon il faut que ñu rester dans le bon wagon pour que ñu continuer d'avancer. avancer quoi. mooy suñu bëgg-bëgg mais match yi comme ni ñu ko xamee dafay dafay outé. Euh, il y a toujours un adversaire qui a ak ay euh, stratégie et maintenant nous savons souvent euh, dinañ adversaire pour gérer match matchs ñun une certaine maturité pour pouvoir contrôler les matchs et ça ça passe par voilà améliorer en tout cas suñu jeu collectif mais la progression que nous constater. c'est c'est dans la logique des choses parce que nous entraîner pour progresser Nous dañuy appeler les pour que nous progressions si c'est noir le football et plus nous avancer si Ligue bi plus aussi nous mën euh, assez d'outils